asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet yi wala téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di bëgg di leen ziar ak Babacar xam nga ak làmb du mën a ñàkk tey nag gis ngeen fi ma taxaw nii ci mbedd laa taxaw ay oto wër ma droite am na fay oto ay garage gauche noonu xulle mu mel ne ki nag fi ma taxaw buntu garage la bu fi taxawee nag kon dinaa dugg ci garage bi xool kan moo fi ne parce que daa mel ni waa làmb am na ci ñoo xam ne est-ce que amuñu yeneen métier yu bokkul ak rek tëgg ñu bëri defe naa am nañu yeneen métier kon xulle nag ñëpp ñi may ma solal bi muy Aram Ndiaye du ma ko mës a fàtte doomu bool bu mag bu maa ngi béggee mais jama itam dégg naa ko mën a def lu baax la maa koy ziar bu baax a baax kenn du jama kilifa gi maa ngi lay ziar. mbaam nga affaire. sant nañ bu baax. naka liggéey bi sant nañ bu baax. fii garage kan la. Fallou Ndiaye. ban Fallou Ndiaye. Fallou Ndiaye Ndiaye production. ah Fallou promoteur. waaw promoteur waaw. yow looy def ci garage bi. man mécanicien laa fi. Ah, ok naka mécanique bi mu ngi doon. waaye nàgg-nàgg rek. kon daa mel ni Fallou du lamb rek la xam. Fallou non non Fallou lamb da kii rek da cee jox rek mais am na beneen liggéey bu du lamb waaw. am kon nañ dem xule mécanicien mu defe naa ay apprenti mécanicien booy lu ngeen di daw nag salaamaaleykum ba am ngeen afiya sa waay de moom orange lay lekk sa waay daa mel ni bëgg nga orange de. li kooni la kooni du orange kooni. ma xool mën naa dawal parce que man xam nga daan naa newoon naa garage mécanicien sans de course. Mm, bismillah. kuréel gi ñu xule ci loolu ne. Ah, maa ngi am jàmm bu baax. ci garage kan la. fi may garage Fall Ndiaye production. Mm, Ndiaye production. Mhm. fii lay liggéeyee. fii lay liggéey waaw. kon moom ndeke lamb kese du métier. yow foo dëkk yow. man marché am bii laa dëkk. Mm. waaw. marché sam noo Mor laa tudd. Baye Mor. Mhm. ok Baye Mor a ngi noonu yow. non kii rek Mbaye dañ koy wax. Mbaye yow dañoo bokk tur man Babacar waaw bii de moom. mécanique la waaw mécanicien la def si gaar. presque trois ans rek. trois ans waaw waaw. sa waay yow yow maa ngi lay bëggee. waaw maa ngi lay delloo bëggee. tur bi lañ koy wax. Ndiaga ah. waaw yow looy def si gaar loo fiy liggéey yow. man maay gérant place bi maay jaay ay pare-brise la jaay ak ay pièces détachées. ah kon Fallou yemul ci ci ci ci ci mécanique bi kese kon Fallou day jaay pare-brise. waaw day jaay ay pare-brise. yow yaa maay gérant bi waaw ak pièces détachées yi. pare-brise mm-hmm. seer san waaw ça rek parce que oto yi dañoo bëri. man rance laa amee quoi sama rance pare-brise am lu muy jaar. waaw rance boo joxee cent vingt mille rek ma defal ko ak montage bi. kon de rance méttiwul. <laughs> non méttiwul. waaw ba bu dee Fallou fi. amul problème kilifa kilifa gaa ci biir. kon ma fek si ko. waa Fallou de ngi nii daa mel ni li olof naan ku doon laajte Fally Ngoye ngi nii sëñ Fallou. Babacar ziar waaye sant bu am ngaa fi bu baax sax. ah dugg si naa ci garage bi de gis say apprenti ñi ngay liggéeyandoo ak ñooñu. waaw loolu mën na ñàkk xam nga fii moom mooy daara ji comme daara ji moom boo ñëwee. ah da ngay jaar ci gars yi waaw mais ñoom suñu waay lañ suñuy nit lañ. di la ziar bu baax di ziar waa Xbox yëpp. di la dalal nag di la wax bienvenue comme bi nga ñëwee ah. ci Xbox léegi ñu ngi doog <laughs> wax. loolu de ça fait plaisir pour kon ñu toog. Ah waaw nañu def nii. maak nag daal dalal nañ ma maanaam li arab naan ahlan wa zahlan tubaab naan bienvenue anglais nag laa xamul nu mu koy waxee Fallou maa ngi lay ziaraat. Babacar ñu ngi lay delloo ziar di la nuyu bu baax di nuyu mbokk internautes di nuyu famille Lambu di ziar waaye kooku si yëpp di gis ne liggéey bi am na solo gis nañ fi nga ko teg te it foofu la quoi. merci beaucoup sëñ Fallou ginnaaw bu ñu la nuyoo defe naa ne mars daaw lañ mujjoon a bëri ki mujjoon tëgg mooy Assane Ndiaye. moo tëggoon bébé jën ak fourrière bët set Baba Diaw waroon tëgg euh, ki nga xam ne mooy soq ak gàmmu gi coronavirus ba ñëw ci bisu làmb jooju la ñu arrêté làmb ba tey parce que léegi ñu dem ci un yi defe naa ba tey am na lu ngeen dund yéen yi ci ay mbir loo mën a dikkaate ci mbir yu mel noonu fi jaar. waaw comme ni nga ko waxee Babacar yaakaar naa euh, comme ni nga ko waxee mois de mars daaw Assane Ndiaye woon tëgg bébé jën fourrière waaw gis boobu sax boo ñun ci lañ a yóbbu suñu pour jàppalee ko état bi mu ñu fekk ministère Assane tëgg fii ñu dem benn réunion ministère pour joxaale leen seen ay dons ci la ñu ministre bi xamal foofu ci biir ndax parce que ñun ñoo ko njëkk a yëg ah. ci la ñu xamal foofu ci réunion bi ne ñu làmb yi war am demee sax dañ koy annulé ndax kilifa gi jël na ndigal te kilifa gi moom bu jëlee ndigal dañ koy jëfe rek boobaag léegi nag yaakaar naa mois de mars ba tey jàpp naa ne def naa ay weer yu bare bare bare bare ndax su ma jumul mu ngi ci neuf wala dixième mois kon metti na ku ne metti wuuti da ngay wax la neex te bëgg làmb wala ngay wala làmb nga ciy dund wala nga koy dundal ndax yaakaar naa làmb moom bàyyi nañu muy dundal ci réew mi bari na ñoo xam ne ni tey bu amee rek dañ ci mën a gis seen bopp bu baax tey ñooñu day xaw a metti ci ñoom trop bu fekkee ne comme suñu genre yi la ñun du làmb du suñu métier Babacar surtout il faut gars yi di xam ne ñun làmb du suñu métier te du liggéey. ma dugg si ay mécanicien ki garage ak ay moteur yu yooyu laa fi gis. waaw ba ka ñun dañoo jàng métier dañoo jaar dañoo jaar fu sori nag ndax bi ñu jógee Bawol ñëw. foo jógee ci Bawol ñëw. Jujuuf ñu ngi jógee Lambaay dëkk bu naan Jujuuf bi ñëwee Dakar ñu ngi dëkkoon Pikine def nañ fa Pikine dëkk naa fa 18 ans. lu fa benn néeg wala. waaw no comme comme demee comme ñëpp rek Pikine def naa fa 18 ans. bi ma dëkkee Pikine maa ngi liggéey Colobane di jàng métier Colobane bi may jàng métier Colobane di foofu laay jàng métier di jàng métier ba ci yàgg très foyer kon xam nga ñun waaw. maa xam très foyer. xam nga ku jàng métier très foyer très bu fekkee ñi ko xam dëgg xam nañ ko. dinañ xam ne jaar très foyer rek euh, làmb ko jaaxal nitu làmb ko mën a jaaxal ñu jaar très foyer bi jógee très foyer jaar Sacré-Cœur jógee foofu dem ancien piste. ko fii tey Cheikh Béthio nekkoon foofu kër Cheikh Béthio bi nekk ñu ngi koy ñaanal suñu boobu yërëm ko. bi ñu jógee foofu ci lañ dem aéroport Léopold nag bi ñu demee aéroport di dugg ci affaire lamb di yëngu ci affaire yeeg mbapat yeeg booy yi Pikine fii tali mag di organiser ay mbapat ay lambutu couleur ay terrain mag daan bawal sax aéroport sax organiser nañ fa mbapat ñu commencé virus bi dugg ñu am ay booy yoo xam ne ni ay rakk la ñu leen di jàppale bi ñu bi gën a gën a dugg ci ñun ñu ne ah pourquoi pas waruñoo mën a organiser lamb pour fexe nit ñi gis seen bopp mais ba ka ñun dañoo jàng métier ba yàlla suturaal am ci loo xam ne mën nañoo dugal ci leneen bi mu ñuy dugalee ci leneen transport la ñu yëngu ci transport bi ñu demee transport bi gis ne mën nañ cee boole leneen muy làmb ñu doog a indi làmb bi ñu demee ci làmb gis ne tey war nañoo mën def commerce ñu doog a duggaat nag ci euh, def commerce jaay pièces détachées jaay ay parabus auto jaay ay col ay join lépp dañ koy def ay batterie lépp dañ koy def loolu nag li koy waral mooy ubbeeku yaatal. ba pare la suñ boobu di dimbalee nga fas yéene ko bokk ak sénégalais yi bokk ko ak askan bi dafa am trop. te euh, nit du rëy ñun boo ñu fekkee fii sama tëni laay sol comme ni ma sol nii damay ñëw toog booy ñu liggéey bu wàcc jot ñu ànd ñibbi su ma waree liggéey chauffeur damay dugg chauffeur liggéey su ma waree monter pare ndax dañuy jaay dañuy monter damay ñëw démonter pare-brise monter comme liggéey amul fii amul patron ñëpp a yem dañuy travailler liggéey bu wàcc jotee ñu ñibbi jaajëf sëñ Fall mu mel ni parcours bi tënk muy laam solo mel ni kon promoteur lamb yi wax rek maanaam nekkuñu ay n'importe personne ci réew mi ndax defe naa garage ni nga war yor ay ouvrier ñu fiy liggéey dafi daan solo dafi jàng métier ba xëy nekki leneen defe naa am na solo léegi su ma ñëwee si lamb ji fàllu yow bi saison bi taxaw noonu ñaata combat taxawaloon waaw bi saison bi tëj daaw ñu ngi ci trois journées boo xoolee régularisé vraiment taxawal nañ Papa Boy Djiné ak ki nga xam ne mooy Bébé Bismi Mor nga xam ne mooy Boy Yëmbël muy ay affiches yoo xam ne ni affiches yoo am solo la amateur yi di ko xaar famille di ko xaar bi Covid bi ñëwee nag ah duñ def lu tamit comme li ñëpp def rek toog xaar muñ xam ne li ñëw du kenn moo ko teg kenn euh, mbir la boo ne ni balaa la boo xam ne ni wàcc na ci àdduna bi partout kon tey loolu bu fekkee daf ñuy ñëw dañuy muñ rek comme ni ko ñëpp yi defee ndax mënoo def lu muñ ndax force da ngaa war a muñ ndax mënoo def leneen kon dañuy jéem a muñ rek jéem a muñ. jéem a muñ daal mhm. muñ nañu ba yegsi ci mois de janvier ñu wax wax yi huis clos dina am ak du am defe naa daje ngeen ak ministre bi daje ngeen ak CNC yéen ci seen biir daje ngeen daje yooyu lu ngeen ci tënke huis clos bi yéen da ngeen koo nangu en tant que ay promoteur wala ban xalaat ngeen ci huis clos bi. xam nga euh, man su ma déggee huis clos bi gars ci wax sax ay fu may jàpp li tax ay reer yi ma jàpp Abacar mooy ñun dañoo am ay kilifa ci réew mi ndax nag lépp lu def rek am na fa kilifa. te état bi moo teg yooyu tey bu dee commerce am na ministre de commerce bu dee sport noonu beneen secteur noonu secteur boo dem rek am na kilifa guñ fa teg ñun bii saison bi tëjee ba fi may wax ak yow benn yoon la ñu ministre bi recevoir te bi mu ñuy recevoir pour loolu moo taxam mu recevoir ñoo ne ñu dañoo bëgg ñu xool yan pexe la ñuy def pour làmb mën a am xam nga kon ñooñu yaakaar naa toog nañ presque lu mat huit mois waxuñu la bu ñu toogee wax la rek am nañ solution wala ñàkkul ne am na lu ñu bëgg a def pour làmb décanté wu c'est-à-dire nag kilifa yi bu ñu wootee di wax loolu damay bañ ñu jiitu leen seen ay bëgg-bëggam wala ñu jiitu leen seen ay yëf ndax biñ ñu wooyee li ñu wax mooy dañoo bëgg làmb am ak nuñ ci mën a waxtaanee ba làmb am loolu lañ bëgg yaakaar naa loolu comme bu ñu ko waxee rek ñun war nañoo mën a déglu xam na làmb yi amee bi ñu waxee proposition ñu huis clos bi nee leen ñun pare ñu pour tëgg làmb pour perte pare ñu tamit pour sànni suñu xaalis yi nga xam ne moom ci def su dee dañoo wóor na ñun promoteurs yi dañoo war a tëgg lamb tey pu perte ñu bàyyi comme niñ ko classé ñu classé lamb mu ne ba kera situation mën a réglé mais da nga bëgg nga Babacar amul benn promoteur bu pare pour jël ay kopparam di ko def fenn pour pert muy huit kilos lamb normal ak lu mën di xew bi ñu waxee loolu autorité bi ne ah léegi li am solo mooy da ngeen di fexe yéen ngeen def seen budget global événement yi mooy budget yi combat bi li nga ciy commencé première partie communication lépp loo xam ne ni mu ngi ci combat budget bi ngay fay mbëri lépp nañ ko def ay rapport tënk ko ci ay document yóbbul ko CNG de lutte bi ñu waxee loolu def nañ ko comme niñ ko war a defee promoteur yi am combat yëpp def nañ ko comme def nañ loolu nag li ñu mën a def mooy xaal kilifa gi mu jot ci xool na lay gëstoo waa làmb ndax làmb nag dafay dafay secteur xam na war nañ na gëstu bu baax war a toog waxtaan muy promoteur yi muy mbër yi muy CNG muy ñëpp war waxtaan ci yenn pexe la ñuy def ba mën a organiser làmb mbër mi du perte mbër mi du pert képp mën cee gis sa bopp te loolu pour mu mën a nekk il faut ñuy waxtaan di dalee ay waxtaan di déggal ay waxtaan ba trouver benn solution boo xam ne yaakaar naa mooy décanter situation làmb am na solo fàllu léegi euh, euh, làmb ci lañ bokk mu mel ni bu ñu xoolee tey par rapport dëkk bi ni mu doxee euh, fédération yi yi nga xam ne ay fédération lañ moo xam làmb jëla astafurla football ba di moins basket ba football moom commencé na basket ba defe naa war nañoo commencé est-ce que làmb du ni mu ñàkk fédération moo tax tey ba problème yëpp di ko di arrivé ko wala. bon xam nga làmb dañuy wax fédération mais làmb mënta nekk fédération Babacar. c'est-à-dire maa ñëpp di ko wax mais man gëw ma ne làmb mën naa nekk mbir loo xam cest à di bu dee football la tey Guédiawaye mooy am équipe Parcelles am équipe keneen am équipe keneen am équipe mais Guédiawaye tey mën naa am 10 promoteurs Parcelles mën naa am 20 promoteurs ci ay privé ñoo ko nekk ñooñu koy def noonu nag soo tey ji su fekkee dañoo ne dañoo am président euh, fédération président fédération moo war a organiser gars yi xamuñu den président fédération tey organisation yi fi am yëpp ci loxoom lay tegu fu équipe nationale Sénégal dem moom la euh, nawetaan sa club yeeg yëpp moom moo koy gérer c'est-à-dire bokkul ak li mooy làmb lamb bu ko defee fédération kan moo koy organiser tey fédération bu ñëwee proposé loo xam ne nii intéressé promoteur yi fa nekkoon promoteur yi dañuy mag seen loxo dem fédération bi doxal ndax fédération bu baax moo war a mooy dem wuti ay partenaire mooy dem wuti ay sponsor comme équipe nationale Sénégal tey fédération bi benn joueur mën dem ne dem wuti sponsor te jaawee fédération bi kenn mënu ko fédération bi mooy mandaté ki a xam ne mooy wuti ay sponsor wuti ay affaire c'est-à-dire loolu euh, kaw bu dee làmb nag dañ koo dénk CNG CNG bi ñu ko dénk man gis naa ye comité la mais ñu ngi liggéey liggéey bi ñu war a liggéey muy CNG bi fi jógee gis nañ ne am na liggéey liggéey na li ci liggéey làmb liggéey bu bu kawee kawe yàlla def na mu jóge fi keneen ki fi nekk ah ñun bañ gisee ñu daje fa réunion mu def ñu gis fa loo xam ne jaadu dañoo taxaw dénoncé ko bañ fa ñëwaatee gis nañ changement bu baax a baax a baax am na ci côté ci côté yëpp kon loolu la ñuy xaar ci ñoom ci njiit yi ñu nit Babacar buñ gisee lu ñu metti dañ koy taxaw wax moo xam mu neex la moo xam bañ laa neex en tout cas duñ ci dérangé duñ ci xas kenn duñ ci saaga kenn duñ ci dépassé kenn mais nag li nga xam te ne nii mooy jëmal kanam ñu gis ko dañ koy wax loolu moom kenn mënuñu wootee wax. solo macha allah Fallou Wiklo yow ànd nga ci ànd waxuma Fallou Ndiaye promoteur mais Fallou Ndiaye amateur buy dund làmb ànd na ci làmb Wiklo. waaw Babacar actuellement situation Sénégal fi mu toll ku ne àndoo ci Wiklo bëggoo làmbam man gëm-gëm boobu laa ci am li tax ma wax loolu mooy làmb mënut a am nit ñi di seetaan. c'est impossible buñ nee dem ba ñu naan dañuy def couvre-feu kon xam nga ne tey lambo cas baa a critique c'est-à-dire nit ñi bu nax suñ bopp ñun buñ nax suñ bopp buñ fi nekkee nax suñ bopp dañuy sonal suñ bopp lamb gis nañ ne ñoom teg nañ ay solution ne xool ñu ngi xool na la ñu accompagner lamb nañu leen bàyyi ak solution yooyu ñu accompagner lamb ñu ñu proposition bu ñu proposition yooyu enracé ñu organiser bu ñu enracé wut ñu toog fañ toogoon mu jàpp ci yàlla toog xaar ndax yaakaar naa ko xaar 9 mois mën ngaa xaar yéen 9 mois ndax promoteurs yi même bu dee jël nañ seen xaalis def ko ci yëguñu problème bi làmb am ndax ku ci ne rek am na fu la làmb fekkoon wala am na foo jógee ñëw ci làmb te foofu mu ngi doon dox kon boo continué foofu rek làmb am ak bañ a am ngay yemale mais dafa am suñu ay rak suñu ay mag suñu ay jarbaat yu ci nekk te làmb kese lañ yaakaar jot ay avance ñii 100000 ñii 200000 ñii 300000 lekk nañ ko bu yàgg te làmb rek lañ yaakaaroon tey bala ñoo fee nekk ak fi mi tollu Sénégal ñu war xalaataat lan la ñuy def mais dina jël temps boo xamante ne nii li mu lii li tey euh, président Macky Sall di def yaakaar naa 1000 milliards lañ génne pour euh, fonds Covid bi 1000 milliards yooyu dégg naa sax ñu naan jeex na ak fii la xale jaar mais dama ne 1000 milliards yooyu 1 milliard wala 2 rek bu ñu ko ci joxe woon làmb wala dizaine de milliards ñu jox ko làmb mbëri nañ bëre gaal yi ngay dégg du am lépp nañ ko seere ci réew mi mais nag fan lañ dugal xaalis bi ay ceeb ak diw ñun amuñu mu ceeb ak wala boog ñëpp amuñu problème mu ceeb diw. lañ est-ce que amuñu am mu ceeb ak diw it Fall. ceeb ak diw Sénégal amuñu problème am. wax dëgg am problème boobu. non góob ma ne am nañu fi am problème boobu xam nga lu tax ma wax ko mooy am na lu gën a lu sénégalais yi gën soxla ni ceeb ak diwlin sénégalais xam nga lu ñu gën soxla mooy ku leen yeewi tekki leen tey jii lépp lu ñu soxla ñu def ko ci santé bi xool na la sénégalais yi maanaam bu ñu bëggee dem dem bu ñu bëggee ñëw ñëw lu ñu bëgg a dox faju lu ñu bëgg def def ko loolu moom la Sénégalais yi gën a soxla ni diw ndax ceeb ak diw tey koo jox saako am na kër yoo xam ne sax deux semaines kon kooku moo lu ko dara te fekkoon nga ko muy lekk ceeb ak diw nañ faciliter nit ñi pour ñu a dem seen dox seen ay activité di liggéey ni ñu doon liggéeyee normal loolu mooy priorité yi mais du ay ceeb ak diw ba pare ñu xool xaay bi ñan lañ ko war a jox covid bi ñan lañ ci war te ne ci réew mi buñ sañoon covid bi du jeex déet waay yàlla xam na ko ndax seen covid bi nga ne loolu ku ko ñeme wallaay taala am na ñoo xam ne bu ñu sañoon covid bi jeex ndax ci la seen business doxee ñun ci réew mi lañ dëkk ci réew mi lañ dëkk fi lañ nekk am na ñoo xam ne bu ñu sañoon covid bi jeex ndax ci la seen business doxee li nga wax doy na non am na <laughs> réew mi bàyyi na ñoo xam ne bu ñu sañoon tey covid bi du jeex mais autorités yi nañ jël seen ay responsabilité ci réew mi làmb facteur de développement la ay millions de nit ñoo ci nekk di ci rey seen bopp làmb yi ci ne ma ëpp nañu ay millions de yàlla xam na ko ëpp na millions di dem ñi ci nekk xam nga ñu ngi naan ay 6 000 licenciés 7 000 licenciés mais li ci nekk nay millions di dem ñoo xam dañu ciy jariñu li tax ma wax loolu Babacar mooy jaaykatu beñe baa ngi ci jaaykatu gerte caaf baa ci jaaykatu ndox baa ngi fa jaaykatu crème baa ngi fa 110 ba kenn bàyyiwul ñëpp ay ñëw pour fréquenter làmb defarkatu tiset yaag photo ya tëggkat yaag kay defar tiset yaag photo ñoom ñëpp dañuy jariñu ci làmb kon tey secteur boobu war nañoo mën a xool nuñ ko amee loo xam te nii même bu fekkee ni ñu duñ ñëw ñu teg ay système pour état bi xool nan lay subventionné lamb pour mbër yi mën cee gis seen bopp même su fekkee promoteur bi du ci am xaalis loolu garaawul promoteur mën naa bañ am ay ay recette mais lim ñuy fere nañ ko ko delloo mu organiser lamb ji bañ cee sorti benn recette boo xam ne dañuy tegu te man Babacar biñ ma laajee yàlla xam ne document yi ma teg tegu ma ci lenn loo xam ne ni ay recette la woo ci man damaa xool sama bilan combat budget bi li ma ciy def ma teg ko jox waaw. mais am na ci ñoo xam te ay combat deux cent mat avance na CNG jël ay matuwaayam ci promoteur yooyu. waaw que gars yi mënees leen a ndax est que nit ñi dem di déclarer na tëgg naa combat cent millions yi tëggu combat di a lool. lamb ji daal boo bëggee dëgg-dëgg cent combat deux cent millions ak cent millions amu fekk cent cinquante millions bu fekkee dëgg la yàlla bëgg. Ah. combat fi gën a seer Ama Baldé mu wut loola à part combat yi ci yëpp benn ci cent millions. déet loolu fan. man loolu laa gëm te laa gis ndax dama xam ne lamb bi yow ama am na yeneen combat est-ce que yeneen ëppul Ama Baldé Modou Lô doole wala. dama ne su fekkee ne. gis nañ Bombardier Balla Gaye. non booy ñaar tafaat amee lamb buy doxee laa su fekkee ne combat cent millions am ci ma gëm ko man Modou Lô Ama doon ndax mooy combat bi nga xam ne combat soog cent millions mais beneen combat bu ci nekk gëwuma ne def cent millions néew ma nag amut waaye man am sama gëm-gëm te gëwuma ko yow daal muuroog ama nga jàpp ne moo fi jar cent moo fi jar cent millions ci des pour yow jarul jarul cent millions kon nag a dugal bu baax a baax a baax bu baax xool li ci jaadu ñu def ko li ci jaadu ñu sànni ko nee de yëfi de moom de may gis ni <laughs> gars yi gis nañ ne état baa ngi ñëw pour jàppale làmb pour jàppale làmb wala bëgg naa jàppale làmb ku ne fàqe fee ñëw naan lii wala lee te ñun loolu doxuñu ci. Ah, da ngay bañ ñu profité yow. voilà li may bañ mooy ñu profité dem CNG naan ay combat 200 millions ak 250 millions kenn tëgg ko fi nañu waxante dëgg da bàyyi seen xel yi ñuy foyee. est ce fa nekk yàggat euh, organi euh, gars jaar ci loom ci organisation est ce que gars yi mën nañ koo nax wala. non xam nga dañuy alerter rek pour ministre bi jël ay responsabilités matuwaayam CNG jël ay matuwaayam xam ne làmb ji ñun suñu bakkan bi la ñu jaaral duñu nangu kenn di ko yàq du nangu kenn di def lu neex di wax lu neex ku ko ci jàppit naka sa bopp ndax am na fu ñu fi toll képp ku ci def lu jaadu dañoo dénoncé ba Sénégal xam ne nag làmb nag ñii dañoo ñëw pour yàq lamb ndax ñun làmb lu ko doxa rek la ñuy wër waruñu kenn en tout cas daal na état bi jàppale làmb bu ko jàppalee ñu te ko ci autorité bi nga xam ne moom lañ ko rek loxo mu ministre des sports mu xool li nga xam ne transparence na ak làmb ku ne li nga ci war a séddu nga am ko ci jàmm ñu régler làmb ji mbër yëpp bëre ci jàmm waaye nag bii bukki bii njuur bii samba bii ki ndayam dee doom ci làmb ji moom koo ci xalaat da ngay nax sa bopp yow nga toog bukki de bu séddalee daa doy waaw boobu père Max doon na wax ne bukki doon nam doon séddalee dañoo teg nar yi ne ko bukki séddaleel bukki séddalee ne bii bukki bii njuur bii sàmb bii ki ndayam dee bii ku ci njëkk jël man njëkk naa ci maa ci teg loxo te moom la ndayam dee beneen bi mooy CNG gars yi ñu ngi wax ne dañoo war a organiser ay làmb moment bi ñu nekk du moment bu CNG war a organiser làmb même su fekkee CNC war naa organiser lamb li ma leen loolu dama leen koy dolli rek ñoom du mois bi la war a lamb ndax bi ñu mujjee dajee promoteurs yi ne ñoom dañuy issee promoteurs yi neen su ngeen leen bëggee ñoom ñu issee kon kay jëwut CNC di issee su fekkee ne lu ñuy jàppalee lamb la rek nañ bàyyi promoteurs yi ñu organiser issee ko issee PPV bi defal seen bopp lépp mën naa nekk waaye nag ay dóor lañuy bañ ak ku jël ay nit liggéey ci lamb ay at di ci rey seen bopp lu ñu ko ciy def ba tey problème am ñu war a régler problème mu jàpp jàppale ñooñ pour ñu organiser seen làmb mbëri yi war na seen ginnaaw war a bëri ñu ay nit ñëw bëgg koo saboté duñ ko nangul kenn waaw te li may gis li may xeeñ nii foofu la gars yi jëm te duñ ko te duñ ko sot te man de du ma ko nangu du ma ko nangul kenn làmb ji daal nañ ko teg ci yoon ku ne man cee gis sa bopp ñu fexe mbër yi nga xamante ne jot nañ avance ñëpp ñu fexe nuñ def ba bëre te bañ fee ne di dóoranteeka naxante amul ñu jëmale ñu fenn léegi damay ñëw fi may jeex léegi yow PPV yow ànd nga ci wala est-ce yaa ngi dox yaa ngi dox ay jéego pour pour say combat yow ñu def ko PPV parce que dégg naa ki rek bës mu wax ka ni sax pourquoi combat yi bu fekkee danga nga tëgg ay quelques combat ñu dajale ko def ko ci benn kii affaire yooyu xool nu muy mën a ame daal. xam nga man euh, su ma déggee ñu naan promoteur bu ndaw Babacar wala nañ jël combat yu ndaw yi dajale ko c'est-à-dire loolu yow mi koy wax sax respecté woo ñu ngi koy wax man bépp muy buzz ak ku ma di doon ku ma dégg nga ne Fallou Ndiaye combat ndaw yi mu yor na ko def nii su ma bu ma xëyee su ma tontoo di di nga dara sa gémmiñ. Fallou est-ce que loolu jar na tontu est-ce que combat yi pa tolloo. déedéet Babacar ndaw amu fi. waaw non même pas promoteur bu ndaw mais combat yi est-ce que kii tëgg combat Tapha Mbeur Ada Fass mën naa tëgg combat yi ngay gis yëpp ndax intéressé nañu te bëggoon nañ ko comme ñëpp fii promoteur bu ndaw amu fi ay lamb yu ndaw amu fi ay mbër gis nga mbër yooyu ñooy wax naan mbër yu ndaw bu leen yóbboon ci ay national bi yóbbu fa si ponkali mbër yi gars yi taaw naan dañoo def ay ay milliards ak i millions booy duma leen ci stade yi ba mu fees ci public ak lépp nañ bàyyi xel yi ñuy ko di baaba naxa Babacar Iba Mar man dëgg naa fa sama tournoi ba mu jeex amul comment ma fa jaayit prix de 10 millions jëm kaw ci recette bi am amoo boo fa jaay 10 millions. lu ëpp wax di dem ci kaw tournoi TFP ba mu jeex ñun dañoo jël suñu ay moyens yu bari di ko def ci làmb baaw Babacar ñun su ma nee la amul mbër yi may tëgg mbër mu ci fayeeku cent ben wala benn lay doon mbër mi ci gën a ndaw di ko fay trois cent mille jëm suuf li gën a ndaw laa wax trois cent mille jëm six cent mille sept cent mille huit cent mille combat yi ndaw yi ngay xeeb yi nga xam ne du grand combat yi nga xam ne ay grand combat di nga fay nit des fois un million wala un nangam kon dañoo jël suñu alal ju bàyyi def ko ci kon duñ nungu kenn di ñëw di saboter li ñuy def duñ ko nungul kenn ñun suñuy làmb bu ñu dee pay ñun ñooy xam nan lañ koy defee ak nan lañ ko bëgg a defee mais du nit mooy taxaw fee naan nii la ñuy defee ak nee la ñuy organiser nit doon ñoo xam la ñuy def ndax li ñuy def xam nañ ko te yàgg ci mais nit duñu ko jàngal na gars yi bàyyi li ñuy def di saboté saboté baaxul saboté baaxul saboté da ma wóorul te mas ta wóor fi may jeexale mooy Equivox ak ñëwam ci làmb tëgg ay combat yoo xam ne defe naa mbër yooyu xam nga leen mbër yu bëri jaar nañ sa loxo tey ñëw Vox Arena ci biir làmb noo ko gis ak di wax tamit parce que la ma doon wax rek hélas du dañ ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la naan fii ngay toogee bu fekkente ne nag bañ nga ak dégg jàmm la boo toogee waaw non li ñuy wax mooy di leen dalal rek di leen wax li ñu bëgg ñoo ko xam yal na ko suñu boobam yombalal yofalal leen ko di leen ñaan leen làmb moom bay nay pax bay kàmb nañu tee rek lamb moom boo tee di nga gis yoon wi waaye boo yàkkamtee moom di nga gis lu lu lu yoon wi lool te loolu yaakaar naa lu kenn te ñun suñu rêve mooy promoteur yi di bari ñu am ay promoteurs yu bari am ay promoteurs yoo xam te ni mën nañu dëgg combat yëpp cest loolu mooy doxal làmb loolu mooy neexal làmb mais tey bu fekkee ne benn Fallou Ndiaye wala keneen rek làmb du dox il faut promoteurs yi di bari ba pare ñu ay promoteurs yoo xamante ne nii vraiment dañu tëgg ay combat yoo xam te ne ku ñëw ci bi sa xol dina sedd baax ka naa tëgg combat nga ñëw isaat sa xol du sedd man jomm naa ko tey combat bu man doon lu mbër man ndaw ndaw lu mu tuuti tuuti su ma ko tëggee ku ñëw isaat sa na sedd ndax xam naa la ma cay def lamb du ay ay ay ponkal de déedéet déedéet lamb du ay ponkal lamb xel moo koy def moo ko organiser mais du ay ponkal la koy organiser nit ñi nag mën nañoo mënantee kii man la fii kii man la fee kee man la fee waaye ku ci ne nungul ko lim man moo gën kenn di xeeb kenn ndax ku ci ne am nga loo man am nga foo xam ne nii buñ la ku la fekk duma ko ci làmb nag. kontaan naa ci yow. ñoo gën a kontaan di rafetlu émission bu baax di rafetlu dalal gi ñu dalal tey di am mbégte bu baax di wax ne daal nan jël xool nan la ñuy gën a jàppalee làmb suqali ko fexe ni ñu gis seen bopp surtout mbër yi ndax comme ni ma koy waxee chaque jour ñun jooyee luñ suñu bopp ndax man li ma wóor mooy fii ba cinq ans bu ñu tëggul làmb naa lekk lu mat dinaa naan te am naa yaakaar ne combat saison bii mooy sax ma dernière saison sax làmb moom coono yi yaakaar naa jaru ko maa ngi gëm bi ma am ah boo xoolee bi sama bi Covid bi ba tey tëgguma benn combat sama trois journée ci laa yem maa ngi doon xool du def deuxième TFP 2019 2021 mais ak Covid bi ni muy jógee gëmuñu sax nañ koy def te gëm nañ ne suñu ñetti journée yi buñ ci pare suñu xel dañ koy def ci leneen gën a concentré wu ci leneen du làmb quoi ndax làmb bàyyi na coono te metti na Babacar ñu ngi ci xalaat daal bu baax sax nag <laughs> ah. ndeysaan kook mooy Fallou Ndiaye defe naa tamit li mu wax am na ah, nit nag booy wax da ngay wax li ne ci yow rek yaakaar naa ne moo am waaye dama naan rek lamb képp la góor ga waxoon rek borom bitiku mbagg boo gis xulee boo xaree xol ba magasin nga cay fekk promoteurs yi eh, ñoom ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay mbër yi noonu nañ jàppalante rek ku ci ne la nga yelloo ñu jox la ko su ko defee jàmm ni ñooy Sénégal jëm kanam réew mi jëm kanam waaye du mën a ñàkk xulle dama koy waxaat maa ngi koy nuyu Arame Ndiaye moom ma solal lii pile bi Arame maa ngi koy bëggee bu baax a baax di leen nuyu xulle di leen ñaanal jàmm di nuyu El Hadj Siri Mama waaye di nuyu Jama Jama moom def ko du teranga la waaye kon nag Jama yaakaar na boo gaayoo ci Babacar dara du ko yàq maa ngi lay bëggee bu baax baax di nuyu ñëpp ñuy suivre ci àddina bi